summa salaatu bi taslimin yuqaarinuha ala allazi mat'uhu aya zawil fikari muhammadin sayidil atbaa'i wa ru'asa al mustafa al mujtaba saafi min al kadari wa huwa al habibu allazi ma zaala muntaqaban min afdali nnaasi mus ansaahu zol qadari ixwatal imaani wal iraada ayuhal muslimoon wal muslimaat al muridoon wal muridaat al xaadiroon wal xaadiraat nu raxibu fiikum wa nusallimu aleykum bi ajmali tahiya wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Fall mbu xeex noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci gudd gi tedd gi nu bokk te muy guddi ngën gi mbindéef yanant bi alayhi salaatu wassalaam nu ngi ñaan sunu boroom doole def julli gu màgg ak sërmal gu màgg ci jëmmam ak ci njabootam ak ci ay àndandoom ak ci liggéeykatam bay sunu bunt ci moom Mawlaana Cheikhul Xadim di ndokkeel bu baax sunu bàyyi alxaaji Ndaama Faal mi nga xam ni liggéey bu rafet bii moo ko xàll wat ko njaboot yi ñu am ci pastéef ba mu jot saa soo ñëwee gën a sant yàlla na ko yàlla dolli wér dolli ko kàttan lu gunge ñu ba ca kanama ak ci barke Cheikhul Khadim jàmbaari sëriñ Touba ja ñu ngi baax Mbàkke moom suñu soppe la sunu kóllëre la ñaare bu nu nekkee Amérique day am ci bërëb bu nuy jekki di toog di waxtaan muy ko oyof di nit ku baax yàlla na yàgg loolu Mbàkke ngi ziyaare sëriñ xaadim jóob moom seex maxtaar Diop di ñaan bàyyi maxtaar yàlla dolli ko leer bu baax bari na sa wéyjur wa ku xëy jaaxle dem seeti ko balaa mi dee jot sa aajo faju bari na ba tàyyi ku seeti ko sa aajo faju bari na ku tiit guddi fëgg ko sa aajo faju te li ko mayoon loolu mooy liggéeyal seex Masamba ba làq ngërëma nu ngi lay ziyaar bu baax di ñaan nga yàgge tooge jataayam bii di nuyu bu baax sëriñ naar Mouhamadou Lamine Diop naar Diop mu baax mais nga xam ni maamam kenn la ci keno kër sëriñ Touba sëriñ Mouhamadou Lamine jóob Dagana li mu bind ci sëriñ bi ak lim ci jàngale ku ci tënku doo réer doo réeral ku la topp mu ngi siyaare sëriñ Modou Fall ak Mahmadan Fall di ziyaare seen rakk yépp ku mel ni maam Cheikh sëriñ Ousseynou sëñ Alsaan ak ñépp bàyyiwunu kenn ziyaar mbokk yi ak kóllëre yi ñi fi teew ñépp ziyaar boroom xam-xam yi fi teew yépp ak jànketu xasaayid yi mu mel ni guddik tay gii mooy guddik ngën ji mindéef yàlla teg ko foo xam ni tegu fa dara tegu fa kenn moom rek la fa teg ku bëggati yàlla teg la fenn danga koy tegal yanant bi fam ko teg roy ko ci nam ko tege ca kaw yàlla moo ni inna allaha wa malaikatuhu yusalluuna ala nabii yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima man yàlla maak samay malaaka noo ngi julli ci yarant bi di sërmal ci moom kon yéen ñi wax ni gëm ngeen ma julli leen ci moom te sërmal ci moom sëriñ Tuubaa mi dégg aaya boobu da ko tëgg bayit ci xasida a demee ci xasidaan bu ñuy wax jaalibatul maraaxi bi fii aajilin ka aajilin li bi sëriñ Bàmba woy na ci ñaar téeméeri turu yanant bi ak benn waaw kay sëriñ Basiru am na waxtaan wi neex na lool ñaar téeméeri tur ak benn imaam waaye ca biir ba mu demee bay tëj xasida gi dani yàlla yaaman amarta zawil imaani kullahumo bi an yusallu ala al muxtaari fi rusuli mooy aaya boobu yàlla wax yow yàlla yaay ci digal ñi gëm ñu julli ci sa ndaw lii kon loolu ndigalu yàlla la ci ku gëm yàlla gis nga bu ngeen seetloo képp kuy wax donte ustaas nga sa kàddu li ci njëkk mooy nu ngi sant yàlla di julli ci yenantu bi am déet kuy wax rek loolu ngay wax ginnaaw bu nu santee yàlla julli ci yanant bi kon sant yàllaay jiitu julli ci yanant bi topp ci moo tax yàlla def ci xikma bu toll ni sëriñ Tuubaa moo sant yàlla mooy màggal da ngeen ko seetlu baax fukki fan ak juróom-ñett ci safar weeru safar weeru rabiul awal di weer wii moo ci topp kon sant yàlla njëkk sëñ bàmba yàlla jagleel ko sant gi muy màggal julli ci yenantu bee ci topp mooy gàmm noonu lañu ñu lànge ñoom ñaar da ngay génn ci màggal tàbbi ci gàmm fële sant yàlla la fii julli ci Moustapha ak jàngale doxalinam la yàlla teg ko foo xam ni ñaare du ko sàllalu moom yàlla wax naa ni ñun rek ñoo ñemee tudd turu yenantu bi di ko sàllalu wala ñu koy wax ci jawhar mais yàlla li ko sàkk woon ba jeex sëriñ Modou alxuraan 114 saar dong la alxuraan 60 isib la alxuraan 120 nisfu la alxuraan 240 rebon la di 480 sumun di 77 439 baat di araf di cent soixante dix neuf mille neuf cent quarante trois masques di trois cent quarante et mille cent vingt huit tombes di trois cent trente mille zéro quinze araf di six mille deux cent trente six aaya ñu wax soixante loolu la composé wu di ko jàng xaaju kaw ak xaaju suuf xaaju kaw a tënku ci fatiha baqara ali imran nisaa yi maida lanaam laaraaf anfaal tawba teg ci yunus huud yuusufa rand ibrahima hijri naxli lisraayi kahfi nga taxaw war song maryaama xaalis taaxalan yaa xajji nóor moomi noon nóor noonu nga koy toppe soaraaw ak nam sajda ba kero ngay àgg ca laxsaab ba kero ngay àgg ca naasi gis nga moom alxuraan jooju ñaari xaaj yi kaw ak suuf ñeent yoon dong la yàlla tudd turu yanant bi ba alxuraan jeex jaar ci turam ni ko Muhammad quatre fois amul cinq amul six amul trois alxuraan quatre fois la ci yàlla tudd turu yanant bi te moom moom alxuraan moom la ko yàlla wàcc bu ñu la laajee yenant bi alxuraan ëpp lu mu tudd aw turam neel yenant yàlla Muusa yàlla tudd na ko 136 fois ci 136 places yàlla tudd na Moussa kii deuxième ki yàlla ëpp lu mu tudd mooy yenentu yàlla Ibrahima yàlla tudd na ko 69 fois ci alxuraan troisième bi mooy yenentu yàlla Noox yàlla tudd na ko 43 fois tudd na yenentu bu ñuy wax Yuusufa vingt 27 fois tudd Isaa ak maam Aadama vingt 25 fois ku ci nekk yenant bi dong la tudd quatre fois lu tax quatre fois parce que yàlla day bànneexu ci di ko bàkk ci turam yi te bañ koo sàllalu gis nga su ma nee la monsieur le ministre xam naa sa tur xam nga tur waaye respe la monsieur le président wala son excellence respe la monsieur l'ambassadeur respect la am nga tur yàlla noonu lay waxee ak Moustapha yaa ayyuhal muzammilu xumil la ilaa qalila Moustapha lay waxal yow mi sàngu gudd di nelaw jógal nga waaraate ji ñëw naa ak sama mbir jógal nga taxawal guddik yàlla gi nga julli jugal jël si naag sama mbir kon yaayu hal mu zammilu yenant bi lay waxal da koo bañ a sàllal yaayu hal mu dasiru xum fa anzir yenant bi lay waxal yow mi sàngu bëccëg di sees su jugal nga waaraate taaxa yanant bi lay waxal mooy weeru fukki fan ak ñeent taa tànk neuf asaxeer boo boolee muy quatorze weer su àggee ci quatorzième jour arab yi taaxa lañ koy woowe Moustapha lay waxal yaasiin wal qur'aanil hakiim ku muy waxal yanant bi lu tax jaarul ci Muhammad wa min ka ca laxzaab ni wa min nuuhin wa ibrahima wa muusa wa isa ibn maryama ñépp di leen sàllalu yanant bi mu ni ko wa min ka ci yow yaa yuha nabiyu ku muy waxal moom yaa yuha rasulu ku muy waxal moom kon bu ngeen seetloo alxuraan ni mu composé woo yàlla du sàllalu yanant bi sëriñ bàmba nag moo ci royaat yàlla desalu ci dara na ngeen seetlu bu baax li ma wax am na xasida ak sëñ Touba gu tudd Mawaahibu Naafi' 166 bayit la sëriñ Touba tagg yanant bi du début à du jaar ci turam antal karimu anal xadimu dëhëran uddiimu fii ka sanaa yi déggal antal karimu yow yar ka yaa tet anal xadimu maay sa liggéeykat dëhëran uddiimu uddiimu dëhëran dinaa saxal giirug dund fii ka ci yow sanaa yi samay woy jaar ci tul nga dem ci nus ëttul ansiq sëriñ Tuubaa woy ci vingt cinq page du jaar ci tur rasulullah kon moo ko ci roy du ko sàllalu na ngeen seetlu li may bëgg a waxit it sëriñ Tuubaa du tudd mukk ci téeréem xeex bu yenent bu perte mani ni sëñ Bàmba du woy mukk xeex bu yenent bi ñàkk mukk ci téere doo nelaw kon alal moonu fitnaal ak doom yooyu ñu bëgg sëñ Bamba rekk a wax ci xalimaam ni bëgguma leen man bëgguma xaalis bëgguma doom ñu ne ko lu tax mu ni lii bëgg xaalis ak doom ci xol dagg nañ ko remplacer ko sopp rasuulaay mu fees ko del mahab mahabbatiyal muxtaara sayidana hubbil maxaaniya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada sëñ Bàmba ne sama deret sax jaay naa ko ngir rasulullaay xool leen ñun ñépp ku ci sol dàll yu bees doo bëgg mu laal salte doo bëgg jaar ci mbalit doo bëgg a ci ndox lu tax dàll yee bees bëggoo mu tilim sëriñ Touba moom li nit gën a fonk xar kanamam lexam nee na def naa ko man sëñ Touba muy basaŋ basang gi yenant bi joggi dàllam di dox ci kawam ba dig bu war a jam tànk Moustapha du ko jam ndax sama lex lay dajal xaddi xaddi wiqaayatun li rijlil mujtaba an sawkatin wa ma yudaahil aqraba sëriñ Touba nee na aka neexoon sama lex bi nekk suuf si rasulaay di joggi dàllam aka neexoon mu xool ma ci bëtu yërmandeem ci ngëneelam ñu ni sëñ Bamba bindal mu ni xaddi jaaltahu turaaba naalihi yaa laytahu lahazani bi fadlihi sëriñ Tuubaa nee na géejug sopp rasulullahi bu doon géej la man seexul xaddim lap naa ci biir fapp ji xaraxtu fi bahri mahabbati rasul wa artaji minhu ridaaya wal xabul sëriñ Tuubaa nee na sama dund ak dundu rasulullaay ba faw dootuma tàqalikook moom aqsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wa wa ma abaahu ya baahu nabiyuna mustafa xayrul wara garabi fi kulli shay'in wa ma ya baahu abaahu sëriñ Tuubaa nee na at mi fukki weer la ak ñaar séddale naa ko ñaar six mois damay julli ci moom six ma koy tagg salaatu sitta bi mathi sitta taati ibatta maatisaa yi sëriñ Tuubaa nee na doom jumaam moom laa koy tuddee Mouhamadul Moustapha borom Taïf bu leen ko fàtte moom la ko tuddee Mouhamadou Fàllilu Mbàkke borom Ndindeeg Saam moom la ko tuddee Mouhamadou Lamine Baara borom Guy Mind moom la ko tuddee Mouhamadoul Bachir borom Daarul Minnan moom la ko tuddee Mouhamadoul Mokhtar moom la ko tuddee Mouhamadoul Mouhayminu moom la ko tuddee Mouhamadou moom la ko tuddee Mouhamadou moom la ko tuddee Hamidun moom la ko tuddee Abdoul Khoudous sëñ Bamba moom la ko tuddee Abdoul Wahab moom la ko tuddee Abdoul Jamil moom la ko tuddee Abdoul Mouhayminu moom la ko tuddee Abdoul Ahad borom belel moom la ko tuddee Abdul Xaadir moom la ko tuddee Serigne Saaliwu borom jàmm ak jamono moom la ko tuddee Muhammadul Murtada moom la ko tuddee foofu la sëñ bi teg yenant ma ni yenant bee fi nekk xoolal lu jiitu daray am sëñ Tuubaa nee na lu jiitu daray am la ko yàllay préparé di ko tànn ci maam yu baax yoo xam ne kenn mës ta def erreur xool kenn mës cee def erreur ay maamam la ko dalee ci baayam abdullahi jaar ci abdul muttalib ñu koy wax saybat alhamdi jaar ci hësim ba abdul manaaf ba keroog ngay àgg ci adnaan kenn mës def erreur ci maam maami rasulullahi ku dul moom boo daqee ci maamam ni ceddo la wala nangam nangam waaw ni ceddo la wala nangam nangam Moustapha nag maamam yépp mësuñoo def erreur sëñ Tuubaa ko wax sëñ Tuubaa neen dañu koo tànn di ko segg di ko segg di sélectionné ba ni ko vous êtes le meilleur ci maam yépp avant muy ñëw ci zahir dina feeñu ay maamam ci baatin di leen defal ay kéemaan te ñëwagul ñëwagul di def ay kéemaan ci ay maamam seexul xaddi xoolal sëñ Basiru Amar wax na ko léegi maam aadama alayhi salaam mooy ëwalul basar moo jiitu ci mbindeef yépp maam aadama mooy maamu ñépp aljana la dëkkoon ñi jàngi philosophie xam nañu le péché originel fala bàkkaar njëkk a ame yàlla ni ko uskun anta wa zawjukal janna waaye nag walaa wala taqraba hazihi sajara fa takuna min zalimin yow ak sa soxna dëkkee leen aljana lekk leen lu leen neex waaye bu leen laal garab gi dama koy tere soytaane man manee leen ba ñu laal garab gi yàlla doon tere yàlla dàq aadama ak xawaa génne leen aljana ni ko nag loo bëggatee am yaa koy liggéey génnal sama dëkk mu génne aljana jaar Inde jaar Makka jabar ja jaar Inde ñu réeroo ay junniy at di wërante ànd di jooy naan rabbana zalamna anfusana fa in wa tarhamna la nakkoon nan na minal xaasirin yàlla ñoo tooñ sunu bopp boo nu jéggalul dañuy yàqule jibril ni cëpp ni ko mag laa xam naa ki yàlla bëgg Moustapha julli ci moom mu jéggal la salli alal muxtaar mu ne allahuma salli ala sayyidina muhammad yàlla ni ko jéggal naa la ki nga dajeel ku dajeeg moom loo ma def gisatuma ko sëriñ Tuubaa dem ca masiyaat jàngal na lool nee na bi jaahihi faaza bil gufraani aadamu min baadin xibaatin min anhaarin wa jannaati loolu leer na nooxin yenantu la mag la mille la dund maanaam dund na junniy at ak juróomi téeméer wootel yàlla juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukk amul lu dul juróom-ñett fukk ñu ko gëm ba mu xëy suba découragé ni rabbi laa tasar alal ard min al kafirina dayaara innaka in tazarhum yuddiloo ibadaka wala yalidoo ilaa faajiran kafaara yàlla bul bàyyi kenn ci àdduna alagal ñépp sunu borom yattuloo ko gaal fas na il fulka bi ayunina yattu yàlla ni ko dugg ci ku la yaakaar bu bëgg a défendre doomi boppam ni ko irkab maanaa yéegal ànd ak ñun doom jalank mu koy défendre ci yàlla ni innahoo min ahli yàlla ni ko déedéet innahoo laysa min ahlika innahu amalul xayru saalih kii bokkul si yow ndax jëfam nuróowut ak sa jëf ku dugg ci gaal gi mucc gaalug noo googu li tax mu mucc sëñ Bàmba nee na xam naa ko ni ko lan la mu ne darajay Moustapha tax yàlla jéggal ko ñu ne sëñ Bàmba bindal mu ni najaa bihillaahu nuuhan fi safinatihi wa jaahu kafa yanquubal baliyaat yenentu yàlla yanquuba daa silmaxa woon bi mu ñàkkee doom yuusufa doomi bàyyi ko sañ sëñ Bamba nee na Moustapha ko jox ay bët Moustapha sovenoo yi ndax falayem sëñ Bamba ni déedéet bil Moustapha axrajal mannaanu yuusufa min sijnin matinin wa min tilkal xayaabaati yonentu yàlla yuusufa doomu bàyyee ko sànni cib teen ngir fiire kook seen bàyyi yànqoo ba ngir place bi mu amoon ñu gën koo respecté ci seen kaw te ñu mag ko kenn la ci mag di rakkam benn yamin ñu mere ko ñi dañ koy wutal pexe dañ koy rey ba mu yàgg ñun duñ def noonu dañ ko sànni cib teen indi ay yéeréem lay sunu bàyyi ni til la ko lekk waaye yàlla ku mu nam nam ma yëkkate kenn mënu laa daaneel benn bindkat bu ñuy wax Jibril Tamsir ñaan ci l'épopée Mandeng de Soundiata Keita ci diggante Sogolon ak Saasuma Berete daa wax ci biir ni lom sous le coup de certaines illusions croit pouvoir modifier la voie que Dieu a tracée mais tout ce qu'il fait entre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend yàlla bëgg a dimbali Yuusufa mu bàyyi ba nu sànni ko ci teen bi caravane bi for ko ab jëgg la jaaye ko juróom-ñetti dërëm Égypte Misra premier ministre jënd ko indi ko ci këram jabaram nopp yuusufa te mag ko fuuf mat ko yaay bàyyi ba ministre bi génn dem muy sàkk yuusufa tëj bunt yi woo ko ci néegu biiram ci chambre ak coucher toog ci lal bi ni ko xëyital la ka jox naa la sama bopp ñëwal yuusufa ni ko du ma mooy yàlla ab yanantu laa mu ne ko yow maa lay ñaan loo ma defalul damaa fexe ba sama jëkkër embauché la ci kër gi mu ne ko waaye duma mooy yàlla ñuy dàqante buntu yi ba quatrième buntu ci la ñu fekke escorte ministérielle bi di ñibbisi ndaw si gaaw lay ni ko lan mooy fayu xale bu fuuy bay ñëw di sàkk sa jabar sa absence te moo doon sàkk yuusufa waaye alxuraan layal waayam wa shahida shahidun min ahliha in kaana xamisoo xudda min qubulin fa saddaxat wa huwa min alkazibin wa in kaana xamisoo xudda min duburin fa kazabat wa huwa min asadiqin falama raa xamisoo xudda min duburin xaala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun yusufa arid an haza wastaghfiri li zanbiki innaki kunti min alxaatixin mu sauvé sëñ Bamba ni sauvetage ba mu am ca teen ba ak ca kaso bu metti bañ ko tëjoon après ginnaaw bi ko ndaw si tuumaalee yonentu yàlla muhammad na ko fa génde bil mustafa axrajal mannaanu yuusufa min sijnin matinin wa min tilkal xayaabaati sëñ bàmba nee na wa saahibu nooni lil mawlal tajaa fa najaa bil muntaxaa fa tanaa kulla xummaati yunus ibn mata daa yàkkamti ndogalu yàlla ni dig naa sama peuple mugal dalul seen kaw gor laa duma fekke lii ma wax mu deñ soobu ci géej gi ni day xaru yàlla yebal aw jën ni ko wann ko waaye bu ko lekk du sa wërsëg mu def fa 40 jours nekk fa di sàbbaal laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin bi mu waree teer génn ci jën wi sëñ Bàmba nee na ci darajey Moustapha la ko yàlla defale wa saahibu nooni lil mawlal tajaa fa najaa bil muntaqa fa tanaa kulla xummaati ibrahima yenantu la mooy maami Moustapha waaye bi mu tojee xërëm yi walaxat aatayna ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin is qaala li abihi wa qawmihi ma hazihi tamasilu lati antum laha akifun qaalu wajadna abana laha abidin qaala laxat kuntum antum wa abaakum fi dalali mubinin qaalu ajihtanaa bilhaqi am anta min allaibin qaala bal rabbukum rabbu samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ana ala zalikum min ashahidin wa tallahi la akidanna asnamakum baada an tuulu mubinin fajabu fajalum juzazan ila kabiran lahum laalahum ilay yarjiun qaalu man faala haza bi aliatina innahu la min azalimin xaaloo samina fatan yaskurum yu xaalluhu ibrahim xaaloo faatoo bihi ala ahrin nas la alahum yasudun xaaloo anta faalta haza bi alatna ya ibrahim jootu lan biya xoolal bi ñu ko naree sànni ci kàmb safara fa qul naa yaa naaru kooni bardan wa salaaman ila ala ibrahim ku ko dimbali moustapha sëñ bamba nee na bihi gadat naaru ibrahima baridatan maa salaami wa haza xarqu aadaati kay moustapha sëriñ Bamba dafa dem ba mu yàgg mu ni ca masrabu saafi wax naa la léegi masra bu saafi ni mu toll man mii di wax toog naa ci rawdu yenant bi di ko jàng ndeka benn naar man rek lay dégg sëñ Bamba poids waxam amul fenn dimension waxam amul ci menn réew c'est un littéraire qui parle waxi sëñ Tuubaa amul ci menn réew je suis un et je parle ma ni yi sëriñ Touba kenn mësu ko dégg dama toog ni yanant bi meloon la doon yanant bi su ma saa wax ci éloquence am arab yépp nan ji wax waxi yàllaa nangu sëñ Bamba da koo doon ni muy wooyee du ay xalaat déedéet lu bii lu bii mu nawarul bi nóoril wax yi waqaada lii xayral ulumil muhi sëñ Touba nee na sama woy nekkul ci lu ñuy xalaat branchement bi yàlla branché Moustapha la ñu branché ci sama xel may gis sëñ Tuubaa nee na kitaabatii min lawxi rabbi tulqalu laa yamtari fiiha nabihun yaqilu sama mbind ca lawhul mahfuz laa koy jële kenn du ci werante ko am ndimbal nee na te yeewu di xalaat ma ni man toog naa ci raw du yanant bi jàng masrabu saafib sëriñ Tuubaa ba àgg ca wax wallazi laa azalu dëxra maadihuhu xirsan ala zikri ma xat xaaza min sharafin laa xasda abdi lazi xat xaaza min sharafin li anna zalika ahya kulla muftakiri fa kayfa yamdahuhu xalqun wa xaaliquhu ajram tidaaxan lahu fi muhkami suwari benn naar yuuxu daal may naj ne ma yaa aqil muslim udnu min nii mu ne yow sama frère musulman jigéen ma udnu min nii mimman jaa haazal xawlu xawluka amiq jiddan xawiyun mimman jaa haazal xawlu yaa aqi wax ji ci kan la jógee jigéen ma nga wax ma ku mu jóge lii ma ne ko laxat jaana haazal xawlu min mawlaana cheikhil xadim mu ne wallahi laxat samixtu isma haazal rajul kaana min Sénégal min ifriqiya min Soudan ma ne ko naam jaa min Sénégal min ifriqiya kaana yuhibbullaha jiddan wa kaana yaxdimu lil maaxi laylan wa naxaaran wa kaana yaktubu kutuban kasiran fi umrihi mu man huwa Cheikh Ahmadou Bamba ma ko rand tey nga dégg dañuy wax ba mu yàgg naar bi ni ma ci boppam billaahi wallaahi wa tallaahi ma sami'tu xattu fi umri misla haza rajul fi mahabbatihi ila nabi sallallahu alayhi wa sallam déggaguma sama dund ko mel ni kii ci bëgg rasulullah ma may ko masrabu saafi may ko wakaana xaqan may ko ma fatul bishri may ko sindi di may ko jaalibatul maraaxi bi ak masrabu saafi bi ma doon jàng mu ne ma dinaa bind ci jëmm ji lu kenn mësta dégg ki may kooku may yooyu nag yerantu bi sëñ Tuubaa ne lu ma am Moustapha ma ko jox kon borom guddi gi war nañoo xam mooy kan ba lislaam jeex mayuk sëñ Tuubaa jaaxal na ñépp ngay taalibeem nga ñàkk ko nekk ñépp la jaaxal le 3 octobre bi may jógee Amérique New York bàyyi nañ fa kërug 7 milliards 500 mille ci capital Amérique capital bi nga xam mooy capital économique des États-Unis ah, loolu loolu du ay lépp mu nga biir New York ci capital économique des États-Unis kërug Serigne Touba 7 milliards 500 mille ci avenue Edgecombe fi milliardaires yi dëkkee jaru nit bu ñuul bi moo am loolu bokkut ak nit ñi dara. xoolal rakkam ji rek seex Massamba borom ñetti kaala ya li mu am ci sëñ Touba kenn amu ko xam nga lu tax sëñ Ibrahima Diop masar nee na bu sëriñ Touba nekkul woon amul woon sëñ Massambay nekk sangu jamonoom moo ko bind bu sëriñ Bamba nekkul woon fii nee na Cheikh nekk sangu jamonoom sëriñ Touba dani ñi ma yaakaar ñépp ko ne dëgal dëgal naa la ci bërëb nga dem dëkk fa maa la jox ndigal waaye Cheikh Massamba sama wet lay dëkk Touba sama wet rek ngir wóolu gum ko wóolu Cheikh Massamba bi ko sëñ bi laajee loo bëgg ma defal la ko dane ko li ma bëgg mooy nekk yow nga nekk man sëñ Touba ni ko Massamba loolu faat na kenn dootul nekk man waaye yow mi wax lool defal naa la fu ma wuute boo fa toogee mel ni man xanaa yégoo ni ba ñuy defar jumaa ji te sëriñ Touba dëddu sëñ Modou Moustapha sëñ Massamba la woolu mu ñëw mu ne ko toogal ñu lay xool day tax ñépp sawar da ngaa nuru sëñ Touba toogal ñu lay xool moo gën a tabe ci yoonu murit ba yoonu murit jeex sëñ Bàmbaa ko bind nag nee na Massamba na ngeen roy yéen murit yépp ci tabeeg Massamba Mbakke xoolal dafa tabe ba lu ko waaye laaj mu jox la loo ko laajul mu jox la di leb di joxe dem na ba sëñ ibraahima Diop Masar wax loolu bi mu koy woy dani faaqal bii la ëhlal joodi wal karami masamba mbàkke kasirul ilmi wal xikami woo wooy rek doyoon na faaxal bii la boroom ngëneel yépp bi ndajee ngi seen kaw moo leen gën faaxal afaadi la ëhlal joodi wal karami boroom ngëneel yi ak boroom tabe yi laa wax masamba ngi seen kaw ki ngay woy ku mu doon mu ni Masamba Mbàkke laa wax kuy kooku mu ni kasiirul ilmi ku bari woon xam-xam la wal xikami ak xereñ moom rek la sëñ Bamba daan tomb mu ñëw lijjanti tomb bi sëñ Bamba leeral ko moom rek la sëñ Bamba daan wax kuy jox joxal Masamba kuy wax waxal Masamba lu ko waaye jox ma jot ci lu ko waaye wax ma yëg ko xoolal zikrul muhimin fil awqaati day dunhu sëñ Ibrahima Diop Massar nii na waxtaane yàlla ak jàng alxuraan moo nekkoon jikkoom wa sukuru aadatuhu fil fi'li wal kalimi waaye nee na habitude sëñ Massamba mooy sant yàlla ci waxam ak ci jëfam kuy sëriñ Massamba mu ni inkaana asxara axu ixwaanil xadimi maan fa inna himmatahu min akbaril himmami donte kër sëñ Tuubaa ñépp a ko magoon ci waa kër Maam Mor Anta Sali kenn ëppalewul itte sëñ Masamba ci yàlla wax tax sëñ Mbay Jaxate mu man mee woy dafa dégmal sëñ ma sàmba benn suba sëñ Masamba di ko may junnit di reetaan nan ko bariwul junnit junnit 1898 ak 17 junni mu may ko ko ba noppi naan ko bariwul sëñ Mbay Jaxate daal di jël xalima ga ni xarit bu lay jariñoo kay lor asal jafewul xarit bu lay mayi junnee kay jariñ jafe na am naab xarit bu ma may ab junni teg ca di ree sëñ Moodu mayit bi muy bëgg a dem woo rakkam sëñ Abdul Baaxi jox ko ko moo tax ñëpp daan dar ci dar ci këram di dem di wuti ñaan du la ñaanal mu nekk dëkku naar yépp ko xam fal bóof ci wetam Seex Isaa jenn bóof ci wetam sëñ Baara jenn taawu Seex Isaa jenn bóof ci wetam sëriñ Tuubaa xelli kaas tàllal maam Cheikh Rafaal ni ko barkelul Cheikh Rafaal ni fuuf kaas bi jël kaas bi def ci poosam toog mu xelli jox se jox Cheikh Issa jenn Cheikh Issa ni fuuf kaasam jël kaas bi def ci poosam toog sëñ bi xool Cheikh saa jenn ni ko kaas bi nga téye lu tax maam Cheikh saa jenn ni ko dañ fee dajeeg sunu magum taalibi Cheikh la te sa kër gi Mbàkke moo fi raw te li tax mu raw fii mooy daa xam ni muy defeek yow moo tax lu mu def ñu ko ci yoroy sëñ bi ni yéen ñaar ñëpp delloo leen ma samay kaas ma yuma leen ko ku ne génne kaasam jox sëriñ tooba sëriñ bi xelli kaas jox sëñ baara jenn taawu Cheikh saa jenn ni ko am nga barkeelu yow murit saadix bi wax jenni toog ci nopp maam Cheikh Rafal mu jàppoo ko ayu bis naan hee Cheikh Issa mbir nga di nekk jur nga doom yi murit saadix Cheikh Issa foo jaar ba am doomi murit saadix sëñ Bamba ko wax maa ko dégg ah Cheikh Issa mbër nga di amu yàgg mu ne xam nga lu wóor kon sëñ Touba nee na sa doom ji murit saadix la dinaa fexe ba bokk ci gaaw leen dem sama kër ngeen xool ndax am naa doom ju jigéen ju mat a dem kër su su ma ko amee nañ ko jox doomi sëriñ Issa jenn ji sëñ Bamba seereel murit saadixam ñu dem ñëw ni ko maam Sooda Fall mën naa dem kër Fall mun nañ ko dencal kii ñu dencal ko ko ñu am ca sëñ naar jenn bu tuddee ko sëñ ngañ tàndine ca ndànd sëñ saaliw xorondoom la dana wooyu sëñ naar jenn xorondoom nee na day ñëw di indi di dem di yóbbu te maamam Cheikh Issa Diène naa la wax mbir li sëriñ Touba mujj a ñam ci àdduna bi muy génn àdduna Cheikh Issa Diène ko toog sëñ Bamba ko jox sànqal ni ko Cheikh Issa toog ko ba mu àgg te bu ci jamaj bu ci juum mun dinañ ko jéem mu ne ko noo ciy bañ a juume mu ne ko xanaa nga dimbali nu ci sëñ bi ni ko looy def da ngay wax bisimillahi rahmaani rahim ba keroog ngay àggal togg bi Cheikh Issa mu ne ko mbàkke mu ne ko ñam wuy reese àjjana dañ koo war a teewlu xam nga ñam wuy reese àjjana nu ñu koy xamee mu ne ko déedéet mu ne ko buñ ko tiimee ñam wi day lox Cheikh Issa ko mujj a toog ba mu sotti mu yët ko sëñ Tuubaa jumaay njaareem fi mu nekk jumaay njaareem le 11 mars 1918 la sëriñ Tuubaa teg xeer wi jàngal boppam alxuraan tifli woolu sëñ Maxtaar Bintaloo mu jàng tifli woolu Cheikh Issa Diène mu jàng mu ne ko sab liggéeye ngo 24 la ko àggale korité la ci sëñ Tuubaa njëkk a jiite te Cheikh genn moo jënd suuf si nag góor gi may sa njaayee ko moomoon ñeent fukki dërëm mu ngutu la ko seex saa fay suuf si lew sëñ Tuubaa mu tabax ci jumaa jii ngeen gis njaay yëf yi dañ koy jënd sëriñ Cerno Jaw dani ma sëñ Cerno Jaw mooy xalifa sëñ Ahmadou Jaw paxa mu ngi fi yàlla na fi yàgg te wér sama baaya sama xarita su ma ko seetee ci néegu biiram la may dugal nuy waxtaan moo ni ma fekk mu woolu ma bis caf paxa di ma waxtaanloo ci baayam sëñ Ahmada Jaw Paxa ni ma damaa bëgg nga waxtaan ma ci tey ba ma kontaan Paxa fii ci wetu Gosaas ma waxtaanal ko ba àggal mu ni bég naa lool dinaa la dooli tey lu bari li ma dund ni ma sëñ Ablaay sëñ Muntaxa kenn gënu ko ci suuf sëñ Muntaxa mii mu ne ko ah mu ni ma waaw mu ni ma fan yii daal daf maa bett bett bu ma neex bi ma koy wax nag sëñ Muntaxa nekkagul xalifa bi booba Seex Sidi Muxtaar a fi nekk mu ni ma sëñ Ablaay daal damaa toog ba tàkkusaan ndeke sëñ Muntaxa yónni na ndaw ni ko xoolal leen ma ndax sëñ Ceerno Jawang ci kër gi te bu mu yëg ni maa koy seet bu mu yëg ni maa koy seet dama koo bëgg a bett xoolal leen ma ndax sëriñ Ceerno ci kër gi te bu mu yëg ni maa koy seet dama koo bëgg a bett waaw lii moom dama ko sànni lii ma sama poos la waaw kay dégg nga maa ngi fan maa ngi fan ok waaw waaw xaalis bàjjo bi aka mën a jaxase nit waaw mani sëriñ Muntaxa yónni ndaw ni ko xoolal ma ndax sëñ Thierno Diaw ci kër gi te bu mu yëg ni maa koy seet dama koo bëgg a bett ndax su ko yëgee da koy jàpp ngan te dama koo bëgg a bett seete mu mun taxaa baax sëñ Thierno may wax sama nopp nee na ma sëñ Ablaay ndaw li ku muus la ndaw li mu yónni ndaw li daa ñëw ci buntu kër gi mu wër wëral ba mu neex ko mu gis benn xale bu jóge ci man mu ne ko waaw sëñ Thierno moom xanaa màgge na léegi de mu ngi fee mu ne ko waaw falaa jóge bala neexee ma yóbbu la sax nga nuyu ko mu ne ko non garaawul damay laajte rek xam naa fan yi ma féexee dinaa ko seet génn rek daw kër sëñ taxa dem ni ko Mbàkke mu nga fa sëñ Muntaxa ni bërët gàddu kaan bi ak bi jaaw bu rafet wuti kër sëñ Cerno Jaw sëñ Cerno nee na ma ma julli tàkkusaan ba tëdd ci sama piliyaan ceetu kër gi gis sëñ Muntaxa mu ni tëll nit ñi wër ko ñu ne ma am nga gan nee na ma sëñ laay ma watte ci kaw piliyaan bi ni ko mbàkke bett nga ma di mënoon nga maa tàggu ma def ko ngan ndax lu ñu am sa sa maama mu ne am amul solo tey daal man muntaxaa mii damaa toog di xalaat sëñ tuubaa ba riir <laughs> mu jaaxal ma lool ma bëggoon ku ma delloo si bu baax ci waxtaane ko te mu wóor ma ni doomu mag nga sa baay mooy sëñ ahmadu jaw bax lu wér la xam ci sëñ tuubaa dund kook moom jombul dina am lum la ci nettali lu wér ma bëggoon ñaari xisa yu wóor yu la sa bàyyi wax nga wax ma ko ndax nga déggalaat ma ci sëñ Tuuba lii rek ka ma andi sëñ ma ne ko dinaa la wax lu wóor sëñ ax ma Ahmadou Diaw Paxa nee na sama baay am na bis benn yoor-yoor mu dem di nuy ji sa maam sëñ Tuuba ci njaareem nee na bi mu demee ba jàkkaarloog yaakaari jaam ñi sëñ Tuuba daa damm ay wóomam raam ba jox loxo sëñ Tuuba sëñ bi fay ko mu dem bay toog. sëñ bi fit taxu ko ni ko jugal Ahmadou jaw Pakha jugal bul toog foofu fi nga bëgg a toog Iblis moo fi toogoon di waxtaan ak man te bëgguma nga toog fi mu toogoon ndax dama laa gërëm Ahmadou Diaw Pakha ni ñokket ni ko Mbàkke kon ma gaaw jóg bala maa toog ci place Iblis mu ni ko toogal ne mu toog mu ni ko Ahmadou jaw Pakha Iblis yàgg na fi tey lool di waxtaan ak man ku yeewu la nag fexe na ba may naa ko ci sama bopp ñett mu jëm ak ñoom safara ëllëg sëñ Ahmadou Diaw paxa randu si waat ni ko mbàkkee nun ñi la yaakaar di la liggéeyal gëm la wóolu la di say jaam ndax mën nañoo xam ñoo ko may mu ni ñett ñii laa ko may mag mu nanguute jaamu yàlla ndaw lu nanguute liggéey jigéen ju nanguute sëy te mën sëriñ bi ni ko may naa ko ñii nee na safara la jëm ak ñoom sëñ Ahmad Jaw Paxa ni tekk ba ba yàgg mu ni ko Mbàkke ndax man nga maa may ndigalal wax ci sama xalaat sëriñ bi ni ko am nga xalaat bisimilah mu ni ko Mbàkke li nga may Iblis du sa ndam ku am fit la woon mu ni ko du sa ndam sëñ bi ni ko noon naa loo wax mu ni ko du sa ndam laa wax ndax yenant bi alayhi salaatu wasalaam yaa ko donn te bi muy bëgg a génn àdduna jooy sax àgg na ci ngir yërëm xeetam weeg iblis lépp mbàkke sa loxo lay mujj ma fekkeek ma wuute lépp sa loxo lay mujj jullit ñépp ngay mujj not te mbàkke dina ci bari ay mag ñoo xam ni wérad yi dina tax du ñu mën a jaamu yàlla dina ci am ay jigéen ñoo xam ni dootuñu mën a sëy te yow la ñuy gëm am ci ndaw ñoo xam duñu mën a liggéey duñ ko am te yow la ñuy gëm mbàkke soo ko mayee iblis mu yóbbu leen sawara boo ëllëgee boo gisee yanant bi mbaa doo am yaranga nee na sëriñ Tuubaa ñokket fàttu ci benn buntu tëj ko tëj ko sëñ Ahmadou Diaw Paxa di ko xaar ba lu mat waxtu sëriñ Tuubaa ni tëll ñaq wi di toq mu xool sëñ Ahmadou jaw Paxa ni ko waaw góor nitu yàlla lu mu àgg àgg war naa am ku rafet xel di ko wax xalaatam mu koy nangu sa xalaat bii nangu naa ko wax nga dëgg Ahmadou Diaw ba xam mu ko Mbàkke bi ma jógee léegi Ibra Fall laa wool woon mu dàqali ma Iblis dabal na ma ko buntu Gabon andil ma leen ma ko joxoon Ilaa لا إله إلا الله لا إله إلا الله برم باخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله mbaax la ilay faal la la ilay la rambi mbaram mbaax la ilay la la la ilay la ila la rambi يقى باسق إلا الله دم غور فال رم غور أرمبي لولا غور ديت جيجل نوي فال يرم نو بوري الله نفس جام نيتخ اللهم صل على سيدنا محمد وسلم tuuti day kon xamante ni saa boo ko tuddee rek tàggoo na ak sama sago giñ naa ci rasulullahi Seex Faal rek laa yaakaar lu mu amul yowmal xiyaam soxlawu ma lool barke Sëriñ Tuubaa maa la wax daan Seex Faal rek laa gëm.